sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppeeb sëriñ Mbacke moom maam soxna loo Jóob Taïf radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëriñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér amiin tey roy Cheikh Abdou Lahad ci ak dëgg radiyallahu taala anhu mbokk yi gannaaw nu nuyoo ñëw ci juróomeeli waxtaan ci juróomali fane safar fas ak yéen ci waajtaayu màggal wi ci waxtaan ak yéen ci soññe ak bi fàttalee bis bii nga xam ne moom la seexul xadiim génnoon jëm ci natt yi te bis boobu mooy bisu màggal gi ci Arama Dieye Sassine 1895 boobu mu bindal boppam wax ne xarajtu yowma sabti saamin alxasar li xidmatil muxtaari fii sahri safar loolu nekk lu doy waar ba tax ñu di ko fàttaliku waaye ci biir fàttaliku gi li tax waxtaan wi jóg mooy waxtaane actualité muy jikko yi nga xam ne moo bari lool ci yoon wi te jàpp ne ci la tëb du ci ndax Sëriñ Tuuba la ko taxoon a jóg mooy wane aw yoon looloo tax mu tudd Xaadimu Rasuul te diggam ak yonent bi ñëpp xam nañ la am na distance ci ay at kon la ko tax a marqué jamono ba tudd xaadim rasul noonee mu def yonent bi noonu yi la ñu war a ànd ak moom ndax moom wax na lépp bind na ko bàyyi fi jëf na ko ñu gis wax na ko ñu dégg kon aw lay amul sunu digganteeg moom te bu nu layoo danañu yey nañ moytandiku perte temps perte temps nag mooy ngay jëf-jëf joo xam ki tax ngay jëf-jëf ji di adresse wu ci moom digalu la loola kon loolu dafa mel ni toog ci aw fen la te ko toog ci aw fen nag bis dana ñëw da xam ne ci aw fen nga toogal lu mel nii am nañu ci nekkoon ak ñun xëy nañ dem wallahu taala alam waaye lañ mën a xam daal mooy lañu sëñtu Tuubaa wax loola lañ mën a jàpp warxabul asiyaa li amwaati raddu ila dunya mahal xayaati walawu sawayatan faqad li tan salihatan tanfahum in xafalu loola rek lañ mën a am ay source ci ñoom ay càkkutéefu kafaatu dugg ci bàmmeel boo ko fëggoon laaj ko lan la gën a bëgg ñaari jëf yi bu ci jëfoon bu nekkit lu tee mu bëgg dikkaat àddina ba mën a seetaat wan yoon lay jël mu doon jëf lu baax yërmaande suñ borom dina tax mu bëgg ba yokk ko bu doon jëf ab safaan nag wala siyaas billahi bëgg naa ñëw bu rëcc ko waaye sëñ Tuubaa nee na dikkaat du am comme dikkaat du am nag te moom mi nga xam ne kumpa amul diggam ak yow mal am ak barsàq lam na wax loola képp moo mat a jëf te xam naa dina kat bis bu la ca xas raw dem na te bis ba duutu dikkaat waaye weer wu la ci raw weer wa dem na te duutu dikkaat at mu la ci raw at ma dem na te duutu dikkaat te bis yooyu day ak weer yi ak at yi lu ci dem te yu bari la dara ah boo demee doo ko fekk dara kon nag soññante day jaadu ci waxtaan te teg ko ci am xel ak xam-xam looloo tax noonu ñu jël sunu matuwaay fekk yoon wi nga xam ne ñu bari ci lañ soobu di ci dox muy nuru dëgg ñu tegg yoon woowu jéem dog yoon wi nga xam ne moom lañu ñu sëñ jaarloo muy siraatal mustaqim siraatal mustaqim nag mooy jub jub googu nag mooy tegu ci ndigali yàlla yi mooy tëndiku tere yi tey wax dëgg kenn ku nekk de bu xoolee ba xam ndono yi fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ndax moom doon na ci dara booba dana xam ma nga ci yoon wala nekkul ci yoon ndax ndono yi Sëriñ Tuubaa di weesuwul lam nekkoon rek li ko taxoon a ñëw muy fas yéene ñëw yeesal sunna si yonent bi sallallahu ba tax mu waxal ko boppam ne ci Moustapha mii laa am yéene ñëw yeesal sunnam si man Ahmadou mii loolee ba mu ko waxee dox na jëm ca kon nun yiit la ñu wax ca moom bu dee dëgg nañu fexe ba ndono loolee mu fi bàyyi muy jaamu yàlla gu mat sëkk teg ko ci xam-xam ragal yàlla gu mat sëkk ak ponki diine yépp ñu fas yéene koo jëfan jëfe te xam ne yàlla wàccee wuñu fi ngir am po wàccee wuñu fi ngir alal wàccee wuñu fi ngir lenn lu dul la mu waxoon rek wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun juróom-benneelu ponk bi wala juróomeelu ponk bi maa ngi jégalu dañ koy joyal jëme ci loo xam ne dañ ko ñambaat ci yoon wi te bokku ci te saytaane kat dem na ba. xettal si ñu bari bañ defe na lañu nekk dëgg la seytaane taxaw di bàkku ak a fecc te loola kat boo xalaatee ba ci biir sax yow mi nga xam ne yaa nga cay nekk boo xalaatee tuuti xool sëñ tubaaku dox yi da danga xam ni nekkoo ci dara ndax àddina moom sëriñ Tuubaa taxu ko woon a jóg mos a jëfal dara ngir àddina lu muy jëfal ëllëg la koy jëfal waaye ci àddina biñ nekk la koy fàggoo kon nag ku bëgg ànd ak sëñ tubaa bëgg a jël àddina téye ko ci sa loxo di wax di ca jëm sa jaamu yàlla ak topp sariha ak sa topp sunna ak roy sëñ Tuubaa yépp alal nga ci jiital doo mën a jariñ ci yooyu ci benn wax àddina kat li ma waxoon léegi yàlla wàcceeñ fi ngir nooflaay wàcceeñ fi ngir bànneexu àddina daf ñu fay wàccee ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbuduuni mu mel ne doole yi sëñ Tuubaa yooyu nag mooy li mu bindal boppam bàyyi fi muy xasidaam yii nga xam ne wax na ne ku ci jàpp genn képp te wëccoo ko dana la mat ba dugal la àjjana waaye day wax jooju day ni ko nit ñi dégg ak na ko sëñ Tuubaa waxe day mel na ne déggin wi def na te nit ñi day waxtu jot ñi ngi koy soññee def ko phénomène boo xam ne si aw waxtaan lañ koy def solal ko mbubb wutal ko kër wutal ko oto dina invité ci plateau télévision yi ñuy taawil di teg rek rek koo ci jëloon ay wax yi ranam sax déglu ko bu baax enregistré ko teg ko bu déwénee boo ko invité ci même télé bi boo ko laajaatee loole nga waxoon bu dikkee danañ ci soppi lu bari wax nag bu fekkee dëgg la te dëgg googu yi boo koy wax waxtu jot nga indi ko couleur boppam war ngaa xam ne kon loola dëgg sori na ko xasida yii nag mel na ne seytaane ci la jaar ba li mu waxoon sëñ Tuubaa ci njéeréem boobu yi nga xam ne yan woon na mboolem lu bon ñëw ba bëgg a dugg ci kërum njéeréem gi sëriñ bi fottase ko ne ko bul agsi mu meccitu ca kaw ne lu ma fi bëgg a def nga yàq ko waaye sama lu bon lii ma yor ci sa biir kër googu yi laa koy jëmee laa koy xëpp si sëriñ Tuubaa ne ko sa lu bon loolu lii day boo ko xëppee sama simiñ bii ma yor danaa la ko xëpp sëñ bee ko nettali mag ñi waaye seytaane découragé wul dafa ne ko maa ngi bëgg a bëgg ndax am naa xabaar ci ne addina bii nga nekk waxtu yi néew moo la fi dese da fi jóge te sa ndono lii nga dicteur bi yi ba waxtu jot nga xam ne fu ñu ko yëkkatee du ma fi mën a jege ndax orma ji ci nekk nga di koy wax mag ñi ak di leen ci soññi gis naa ne fi nga koy bàyyi te su ma leen seetaanee li nga bëgg ci ñoom da ko am léegi nag boo ko fi bàyyee dem. ci lay jaare dugal ko ci noppi bi yi yombalal leen àjjana te duñ ko jaar ci jaamu yàlla jël sa xaside yi téye ko remplacé ko jëmbi suñ borom ji remplacé ko alxuraan foo moomee ñu ciy dugal nag ak koom ma ma leen ci ay booleel nga xam ne dana tax ñu gën a xirtalu ci caaxaan yi noona laa leen di jàppoo ba yàlla dogal ñu génn dina ñu tàbbal leen sawara keroog sëñ bi nettali na ko ndax nee na ko yow moom taxatoo ma jóg ndax danga maa të sa njaboot it dañ maa say saadeex it muy say taalibe dañ maa waaye ñenat ci say sët duñ ma li yàqu lépp nag ñaari nit ñi ñoo ko yàq kii woote woo ab sëriñ di toog ca kaw di foqi baaraam ñi dajale addiya di ko jox di sukk fi wetam te du leen delloo kenn ci yàlla ak ki nga xam ne dafa jël xasida yi sëñ Tuubaa yii fas yéene ko def métier def ko liggéey te xasida yi nee naa leen jàng ko du métier waaye sax ci dàkkit du mecc ndax liggéey ci boppam yàlla daf koo digle comme yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam mooy refee ci lañuy ñuy jaay na bay na sàmm na lépp def na ko kon waajib la ci jullit mu dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi ci liggéey di fàgg lu lew te la nga cay amit nga di ko jaamoo yàlla te bañ koo ci fowe kon toog di jàng xasida kese loolu du mécc sëñ Tuubaa di digliwu sëñ Tuubaa it mësu leen ñu dégg benn yoon boo xamee ne ki nii wax na ne sax leen ci jàng xasida képp bàyyi ab liggéey ndax moom yonent bi da koo gënal léppam doomam yii fi jaar ki ci jiitu Cheikh Moustapha li nga xam ne ci àddina bii la ko réalisé sëñ Touba muy édifice am bu mag bi muy jumaa ji ñëpp xam nañ ne alal la ci dem alal jooju ci liggéey lay jóge ay tool la wutoon yu yaatu gor ko ay daara gor ay dëkk def fa mbooloo ñiy liggéey di indi ci jumaa ji ak li nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne ay mbokkam lañ ñuy ay rakkam kenn ku nekk fa nga nekk bay fa sa daar di liggéey di indi ci jumaa ji moo ne xasida yaa fi woon de te ñu ko gën a dégg fuuf waaye xam nañ ne njàngum xasida du métier kon bu ñu demee ba jamono ñëw soppi kuy waxtaan di waxtaan ci xasida sol sab garab bu doo gisee fu mu baye doo gis fu mu tukkee doo gis métier benn mu yor ku ci yoroon métier sax da koy mujj bàyyi commencé di foqi baram daal di seexal sa bopp defe ne yëf yi sëñ Tuubaa la ci wuy ci fekk saytaane jaay saytaane képp ndax loolu mënta taxawal dara ndax amaana sax man ngaa bañ a dégg xasida yi amaana sax man ngaa bañ a set amaana sax yu baree bari mën na cee laxas kon jàngum xasida ci bind ko ak toog di ko jàng ba mu teelaa xëy dem yaxantu ji loolu du mécc ndax borom bi nga xam ne moo ko bind day te ci moom la ñuy roy te ci moom la ñuy barkeeloo lii nga xam ne mooy dox ci àddina nga xam ne fi ne turam bi fi ne procès lañ ko def képp koo xam ne yaa ngi koy tudd ku nekk xaalis rek tax nga di ko tudd moo ne borom moom it bi mu koy bind teewul mi ngi woon ak tool di bay Tuubaa gi ñeent daara la ko defoon ko soow gànnaar Saalum comme borom nag moo doon bind xasida yi gën ñoo xam xasida yi gën ñoo xam lam cay wax ñaan gam cay ñaan mu dàq ñu koo ñaan yàlla gën ko cee may moom ci boppam comme moo nekkoon ca loola te doyloowu ko woon yam ja waaye daf koo boole woon akub liggéey nga xam ne as ngor dafa war a liggéey ab julli daa war a liggéey ndax ab liggéey boo ko deful sa ngor du mat te képp koo gis ne danga wutal liggéey taxaw di foqi baaraam la ko tey liggéey dana ca daj loo xam ne nekk nii liggéey ko gën a sedd kon ñii waxtaanee xasida di ca dolli lu ca bokkul te wax naa leen ne waxtaan nii ba ko gisee ci yoonu murit moo tax yàqu-yàqu yi di yokk moo tax bunti seytaane yëpp ubbil nañ ko li nga xamante ne sii mooy saytaane mooy kii waxtaan bés bu set la muy bëgg mooy di wax lu nit ñi mës a dégg walla di fekk lu nëbb lu roqe lu kenn mës luñ nangut a wax mu jékki-jékki ne ko telli ci télé la muy jur rek mooy askay jërëjëfe sëñ Tuubaa su ko defee loola nag ki jàng tey topp sariha donte sëñ Tuubaa du ab sëriñam te sëñ Tuubaa ñëpp ak njabootam lañu kooka bu cay jëlee raya rayaasir ci rek benn mu tontu ca wala mu wax ca nga gis jaahil yëpp jóg defe na sëñ Tuubaa moom yàlla la wala sëñ Tuubaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen saaga te boroom xam-xam kenn ko saaga jànkatu alxuraan kenn du ko saaga yéefarloo leen te nit kenn waru ko yéefarloo weddiloo leen sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa kenn moomu ko ba koy weddiloo kenn ku gëm sa bopp ku weddi sa bopp te kenn ku nekk la ci sa xol yaa ko xam dugg ci xolub jàmbur nag naan gëmul sëñ Tuubaa ak daa bañ sëñ Tuubaa te sa intérêt bopp ak sa merum bopp képp tax nga di ko wax ngir ñàkk bokk ak moom aw doxin ci lislaam ñu bari ci mbooloo moomu nag ñu fi ne ñoo topp sëñ Tuubaa mooy mamm moom mi sëñ Tuubaa doon wax sëñ Maxtaar Bintaloo naan ko gis naa ci yoon yi am mamm dey moo xam ne mbooloo mu bari dañuy dajaloo mbooloo nekk nii mbooloo nekk nii mbooloo mee faq am ku leen jiite ñu daw dëgmal sawara te taxawuñ kat ña ngay daw te buñ taxawul danañ àgg te ñooña ne nañ maay seen sëriñ loolu nag ne moo yaatu lool ndax sëñ Tuubaa àddina daf ko musta fàggul dara te tàggatoon ñum àndaloon dëdduloo leen àddina ndax àddina jumtukaayu seytaan la dëdduloo ko ak njabootam ne ba ci kanam loolu dana leer kon waxtaane sëñ nga gis ko àgg ci réer lu bon li nga xam ne seytaane ci lay jaare ba yàqal nit ñi ci la jaare ba weddiloo nit ñi ci la jaare ba mottaloo nit ñi loola ñoom la ñuy bàkki sëñ Tuubaa muy oto bu rafet boo xam ne yow liggéeyoo ko danga toog ci tele di wax lu dul dëgg wala ngay def ay conférence di wax lu dul dëgg dégg nga ay dof jóge fële def ay daanokat bëgg ne ñoom li ngay wax mën nañ caa jaar ba am ngërëmal sëñ Tuubaa te duñ ko jaar ci jaamu yàlla yëkkati alal ju dul jeex di la jox nga xam ne li nga am ci alal ji ci aw fen nga ko am ak wax lu dul dëgg tey tuddoo sëñ Touba nit ñi nag fonk la lool ndax jamono ji ku la dàq wax lu dul dëgg gën laa yombal àjjana dàq laa sosal sëñ Touba dàq laa bu ponk diine moom la nit ñi gën a fonk waaye ku la dàq waxu dëgg nit yi dafay mel ne seen xol bu dagg nga tiim kook alcool di ko ci sotti du ñu man ci yow xool da dem sax ba yow da ngay mujj ne ndax man yàlla daa def ci man loo xam ne si nit ñi dañ maa bañ da nga dem ba doonu yoon nit du la fay boo waxee dara ñu ne du dëgg boo demoon tey ci barab ñu war laa jox kàddu dong nga war a yëkkati wax ñu am ñu jóg ci gannaaw di la xeex ndax la ngay wax arrangé wu leen day menacer seeni intérêt ñi nga xam ne nag dañuy jóg di sosal sëñ Tuubaa ak a fenn te nanguwuñoo liggéey yor ji koy tan ji sëñ Tuubaa doon wax ba bëgg di dundee médd te fa suñ jëndee liggéey ñooña tey lañ jële fa te ñoo day fi ne ay murit saadeex lañ leen jàppe ña ngay dem sax bay ñu leen classé ci classe ab seex akub sëriñ moom du dara seex moom sa sëñ Tuubaa waxoon rek mooy seex lu bon waaye nii ñu ko jàppee defe def ko nguur toog bañ a liggéey sa moromam jaam di liggéey di la dundal ngay bàkkoo ay sarax yu ñu lay jox ay addi yu ñu lay jox nga di ca tagg sëñ Tuubaa loolu képp ku ko def da ngaa tooñ sëñ Tuubaa waaye jotee wu ci ak sëriñ Tuubaa dara te gis nañ ne loolu yaatu na nit ñi fu ñu toog di wax lu ñu mës sa dégg am na mag mu ne woon ci njëreem ak sëñ Tuubaa mas naa wax sañ diw nangam te xisa bi ngay wax sax amulul kenn njëriñ amaana kan koy wax ka nga koy nettali di ko ko adressé sax demeewul woon noonu loolu gis nañ ab xista yu bari yu ñu doon wax ci naan katab sàngara boobu daa daan tudd sëñ Tuubaa ba xëy faatu daa sëñ Tuubaa ne ana sama waaja ñu ne ko faatu na mun a tey la xam ne am naa waay te loolu xam ngeen ne méngoowul ak waxi sëñ Tuubaa ndax wax ji dañ koy dagg di tànn ngir yokkatloo nit ñi di jay ñi yor alal ngir bëgg ñu deen fekk di fi deen ko jox ak jël alal sëñ Tuubaa ji di ko taxawaloo loolu ab politique la ab campagne ñu ñëw ci ñi nga xam ne nag dañu koy jàng muy ñi nga xam ne dañ koy jàng ñu di leen awu gis naa ne day ñooñu de liñ màbbu ci ponki lislaam yii sëñ Tuubaa doon taxawal ba mu jaral ko génn dëkk bi bay wax nan ku sóor yi xalat wala ahlu xan ni tafaraxat li mat xil la si xanuma di um xasiru ñooñe day lépp lu jaraloon sëñ tubaa def loola yàqaat nañ lu ko ëpp te moo ne day ñooñe day fi mu ne ñoom tamit moom ñii may wax wax ñoo ñoo ñoo bokk ndax fu ñu iwitee ñi ñooy bokk fu ñu iwitee ñooñu gis nañ ne jàngum xasida mi képp tax na tey ku ci génne ñaari daaj ku ci am ñaari ngodd daal di dem jënd sa mbasin bu rëy gome ko tàmbali wut say daaj ñu tàmbali di wër ci kër gi di la campagne la ko politique di bóof ci taat wi ak buñ toogee ci kaw ñu toog ci suuf donte sa morom yi bàyyi lañ ngay foqi baaraam ak a joxe cati baaraam loolu moom boo ko xoolee sax te xam ne xasida yi ngay yëngu war nga xam ne loolu saytaaneem la mu waxoon sëñ Tuubaa loola yow yaa ngi ci biir ba gis nañ ne ñoom it duñu liggéey waxtu jot ñi ngi wër di def ay ngont waxtu jot ñi ngi wut ay kuréel yu leen di nekk ci dëkk bi leen campagne ñuy wax soppee diw ci gone gu ndaw di def di ay rek di dajee di ñëw di la jébbale si loolee de bu la wóoree ne ribaa ngay lekk ndax kenn benn sañ-sañ boo am ba sa moroom jaam di liggéey di la jox ci turu sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa digalu la ko loolu la ngay lekk noona la ñuy def nag ñoom it di dem ci télé yi waaye dem nañ ba lëg métier moom saturé na ba ñi ci rax dafa bari am nañu fi mu ne ab waykat bu dikkoon fii ci Touba gii seen mën nañoo sumbi seen bubum xasida moomee ànd ak waykat boobee ngir alal jëm yor kon loolu xam nga ne yow xasida yow defaratu la waaye yow xasida yi daf laa toroxal loola it gis ngeen ne mboolem lu sëñ Touba tere ci dëkk bi it jël tere sëñ borom muy jataayu groupe jigéen gis nga ne jàngkat yooyu liñ ciy xëy di di tooñ lislaam ci dëkk bi kenn xamul ni mu am na ci jigéen yoo xam ne sax am nañ xaalis boo xam ne jëñ jël place góor jox leen fi mu ne foo leen gis ay góor ay jël yu jàng alxuraan ba ne ar nekk ay mag magi jëm mën ko jur ak jàngkati xasida yoo xam ne si ñoom tamit ci kuréel gii ma wax lañ bokk ànd ak ñoom boot seen garam bu ngàbb seen i dal di ko tagg ak di ko réyal ak taalibeem te teere bi ñu koy rëy loolu ñoom doonuñu ko te it xamuñu maanaam kan kan la wala wala kii tax sëñ Tuubaa mi koy validé dafa am sart yu mu koy validé waaye du ceegi nag ku ne murid laa rek nga ne murid saadeex ma loolu tax nañu séggatuñ kenn saay saay bu mu mën a doon bu dikkee yor alal ne murid laa rek ñu def ko murid saadeex tàmbali di ko tagg duutuñu seet la lislaam rafetlu ci moom wala la lislaam tere ca moom te loolu ñu koy def ñëpp ñu ngi yëngu ci xasida yi naan sëñ Tuubaa lañu yaakaar xasida yooyu dem nañ ba gannaaw yi ma wax yëpp dañuy dem ba kenn ku ne da ci wut sa màggalu bopp baas sa baas def say say kat say carte daal dem say def say bande annonce ci rajo yi su ko defee sa moroomi jàngkat yëpp ñëw leetar yooyu ngay jël di sànni alal jiñ ciy dajale di la ko jox kon loola defalatoo xasida dara da ngay jëriñoo xasida waaye mënatoo ko yokk ak toog di tëwri di sos ngir bëgg sa ceex gi ngay wax nit yi gëm ko ngay joxe ay dom di joxe ay bayit sëñ Tuubaa nee na woon ku jàng xasida nangam foo war a liggéeyee tedd fa ñu jël aw bayit na la boo liggéeyul tey jàng bayit woowu guddi sàngam dañ ko am wala xasida sàngam ba xasida yooyu sax am na ci ñooñ da ngay gis ko waxambaane la wu toll ci war a dem daani dooleem liggéey yi boole koog jaamu yàlla yor ponkalum jukki xëyatul gondatul mënoon naa nekk ministre métallique wala mu nekk ministre bois wala n'importe quel métier mu yor ko day xëy lépp bàyyi ko dugg ci néeg bi di durus ba jël xasida ga tudde ko boppam gis ngeen turu xasida yi ne ko dañuy tudde seen bopp te loola sax ñoom boo ko xoolee sécologiquement njëstal la ndax liñ ci jublu mooy wane ne man xasida gi dama koy jàng kon te jàngoo ko ngir yàlla waaye da koy jàng ngir intérêt addina ak di ci propagande ak di ci campagne te borom di defewuloon loolu xasida yi des ko war a jàng ngir yàlla su ko defee jukki yooyu ñuy yor mooy dem ba dañuy am soxla su fajuwul ñuy boof ci kër sëriñ si ak ko ñu des kaalaw boobu weex tàll yor kurus gu ngand goo xam ne que ni boo ci yoroon oto 30 tonnes mën na ko dugal ci biiru teen dikk naan la jox ma sa montar bii ma fasal la wala nga jox ma sa nangam ji ma fasal la waaye damaa soxla nangam nga fasal la kon loola war ngaa xam ne xasida ya tëratu looy xasida ya daf la toroxal gis nañ gone yu baree bare fi ne nii sànku nañ ci loolu ci ay dog yi ñu leen di jox ay xasida yi ñuy fanaane di rus te loolee nga cay daj ngir bëgg a am dara wala nga bëgg ci fiir ndax ci ne nii boo ko dajoon ci xëy wutim xëy di liggéey wala mu fekkoon na nga yor sa métier da nga dund te xasida yaa ngay jàng da ci am tuyaabay suñ borom kon jàng xasida du métier jàng xasida du métier waxuma la nag nga koy jàng te doo ko sellal am na ñañ lañ koy rax maara day taali képp ko dox ba tegu ca da nga xam ne kat ñii moom bala ñoo génn àddina suñ borom dana leen tabaxal te jàngkat ya fi nekkoon bu njëkk donte xëy na maanaam bu seenug sell de seenug sellaange demewul noonu it ñoo tax ne nga jàngkat yi fi nekk ndax am na ñu fi nekk jàngkat yu mag yi fi nekkoon yooyu amoon nañ mécc bu jàng yi jeexee dañuy dem wuti mécc waaye koo xam ne si da ngay dajale say kuréel woo xale yi jigéen yi su ko defee kenn ku nekk nga koy wax naan ko fexeel ba kere ab ab ab am ngont mu ñëw jàngal la ko xale yi jigéen yi daal di commencé di wër di di diw def may jàngal suñ dikkee toggal la reer dajale dara jox la ngay wut bës ci kaw tur bi di dem ci tiktok yeeg di dem ci youtube yeeg dégg nga di dem ci plateau télévision yi te loola sax am na geneen yàq goo xam ne si dugg na ci muy la seytaane doon wax man gis naa jàngkat boo xam ne dem na ci plateau télé ci mois de ramadan bii di yëngu ci jàng ci xasida sëñ Tuubaa te fu mu wax tudd sëñ te nit ñi woon ko lool ci jàng ma waaye nit bu amee xel lu jóg lu nekk du ca tëb na ci bëri waaye jay gi ko nit ñuy jay ak alal ja ko cay dikkal ak la nga xam ne mooy àddina jëm cay sàkku donte bàyyi na jëmam di nuru ko dëddu àddina waaye loola mën naa ne ak fiir képp la ndax wax mooy confirmer ay jëf taxaw si digg teel a yëkkati sa micro ne àgg naa ci yàlla sas naa ci rëkk léeg-léeg nga gis ko ne sëñ Touba feeñu na ma léeg-léeg nga gis ko ne gis naa yonente bi léeg-léeg nga gis ko ne yàlla nee na ma te loolu lépp wor la goo xam ne nekk nii saytaane fexe na ba dugal ko ci ñooñu nga xam ne dañoo waroon a dem liggéeyi ba am lu ñu sànni seen war di jàngal seen i jaamu yàlla tey liggéey tey dunde seenu njàq fexe nañ ba loolu am na Italie gii nga xam ne ci laa nekk nii nga xam ne nii laa wax waa Sénégal ñoom it noonu laa leen di wax ndax am réew boo fa demee di liggéey la la la war a occupé mooy sa jaamu yàlla nga nga yóbbaale nga di ko fa sàmm liggéey ba la tax a jóg nga di ko liggéey waaye dem nañ ba turu sëñ Tuubaa wi daanaka Sénégal yi dong ñoo koy ngëwtu ngëwtee di ko yóbbu tasaare ci réew mi tubaab bu dégg sëñ tubaab ci Sénégal la ko gis waaye du ko teg ci xasida goo xam ne si xasida xam-xam la nga mën koo jàpp jàpp tojal ko yax bi ba mu xam kan mooy sëñ Touba waaye nun daal nii ñu doon def Sénégal la ñuy def dañ ko copier ko kole ko kole muy waxtu jot ñu ngi wootee cant ñu ngi wootee màggal kilifa yi nekk fii te nangu ñëw futtiku liggéey it fexe ba lëkkaloog ñooña nga xam ne kër ga kër gu ñu wooteel day am kilifa goo xam ne si moom lañ koy ne dañ koy daggal fii billet mu ñëw bu dikkee ñu daal di dajale ñëpp waxtu julli duñ ko sàmm donte danañ julli waaye julli gannam war a demee du ni demee bu dikkee jàll suñu kaamil alxuraan njàng ma daray teggin du ca nekk daray orma du ca nekk ndax jàng yoot sab jukki te sa téléphone di envoyé message ak retiré ay message yenn saa yi nga taxaw lu mat deux minutes di woote ab appel léeg-léeg te ba pare téye jukki bi di jàng téye kaasub kafe wax akee léeg-léeg nga dénk ko kenn dem ci bit raay sa gannaaw wax ba sa xol sedd nga dikkaat léeg-léeg nga lem téere bi noonu joxe ko na jàng naa ko loolu mooy màggal yi ñuy màggal ci biir réew mi góor ñaa nga fee jigéen ñaa nga fee kenn ku nekk indi sam njaay gone yaa ngi ne kenn mënu leen a téye yëruñ diine ji nga xam ne ci lañ juddoo sax génnee nañ leen di làkku réew ma la ñuy làkk noppi leen ji fa toll di ko wax te ñooñu ñëpp ne sëñ tubaa lañ yaakaar ndax lii mooy murit gi sëñ tubaa soxla nga xam ne tey sëñ Touba tey addina bi kenn xamu ko ci ku dul Sénégalais yi ndax dañ ko jéemul tasaare ndax dañ koy dañ koy dañ koy dundee def ko procès di ko jëlal avion di ko solal yére di ko waral ay oto loolu képp la ñuy def moo tax màggal yaa nga fee li ñu fa doon dajalaatu lépp war ko indi ci réew mi def ko fi man cee tabax ay daara muy jaaree alxuraan daaray xam-xam mën a soutenir sunum réew dañ ko faa far yemalewaat di ko soutenir ci commune ya fa nekk waxtu jot ñu woteeg cent xanaa corona bi moo ko tey waaye àggoon nañ ci bés bu set ab ab programme bu dee Italie gee ma nekk calendrier bi bu génnee janvier màggal yi ci am yëpp cant yi ci am yëpp danañ ko wax jàngkati xasida ya fa nekkee ñoo ngi ñoo yem nangootu ñëw futiku liggéey sol seeni i mbubb yor seeni i oto ànd ak seen i waxkat màggal gu nekk ñu dem fa bu ñu nemee jëlu xasida di ko yëkkati luñ ca mën a daj rek seen alal dañ cay am a tax wut seen i carte mémoire ak seen i wecc ko waale ko arsira sérim bu buñ defee di ko jaay 10 euros 10 euros ndax sëñ Touba bii bu ñu ko jàppoo nii ndax sëñ Touba mën nañ ko yaatal ci sunu biir rek comme sunu biir nag lañ ko séddale te séddoowuñ xam-xam bi séddoowuñ jaamu yàlla bi royuñu ko ci dara fan la sëñ Touba di di tasaaroo te moo ne adduna bi de foo fi dem ña fa nekkoon ay kàngam ci lislaam kenn ku nekk te nga bindoon ay livre benn muy ay téere téere yooyu fexe dañ ba adduna bi dëkk bu nekk yóbbu nañ fa téere yooye nga xam ne tey kuy wisit istu istuwaaru àddina euh, da nga fa fekk seen téere yooyu téere seen tubaay doo dox fenn ba fekk ko fi ñoo koy móol ci suñu biir dajale ci màggal yi jaay téere xam-xam yi moom wan nañ ko gannaaw jéematuñ ko laal fenn koo ci na masalikul jinaan tey boo ko waxee te néewoo sëñ tubaa nee na danañ la fa tifaara wax la lu bon ne kii ab yéefar la ñoom kan jàppee xaritu sëñ tubaa rek mooy kii ma boppon ki kii xotte orma yonent bi ki nga xam ne day sàggane diineem te na ab murit laa kooku sax dañ koy tagg naan ab saadix waaye boo ne yàlla nee na génn nañ ci yow boo dee alxuraan nee na génn nañ ci yow boo ne yonent bi nee na génn nañ ci yow Sëriñ Tuubaa nag boo bëggee waxtaan ci moom jël yàlla sànni jël alxuraan sànni jël yonent ba sànni te na ci sëñ Tuubaa laa bëgg waxtaan ay fen dugg na lii daal mooy li nga xam ne moo occupé juróomeelu waxtaan yii nga xam ne moom lañ leen sumbal ci xasida yi nga xam ne nit ñi laxasu nañ ci wax ne daal ci lañ bëgg a sañ sëñ Tuubaa te lu waaye wax rek na damay lëggéeyal sëñ Tuubaa te foo dem di wax boo dem jànkatu xasida wala duruskat wala gat te la nga bëgg ca ndaje moom benn nga jël avion wala ci réew ba nga nekk joxuñu la ko bu dee déwénee du too fa dem bañ nañ ko ba seeni baara jind lañu wut yoo xam ne si ñoom ñooy dox projet boobu boo bëggee ñë dañ naan la demal fayal cent mille fayal deux cent cinquante mille toggali reer te ne ci xasida yi lay yëngu ay naafiq dafee bari lool kon mbokk yi ñu ngi taxaw foofu ci waxtaan wi nga xaw de moom lañ jëme ci benn jikko boo xam ne murid yi ñu ngi ko jikko woo ci xasida yi te ne sëñ Tuubaa la ñuy te yàq ci lu bari ndax tax nañu bari ñoo jaamu yàlla am na ñu xasida fi ne boo waxee ñu ne xasida laa jàng dama jàng alxuraan am na ci ñoo xam ne si xasida lañu def muy seenu sëriñ te li may wax lu leer nañ la ku dem nag ba yooyu yëpp nga gis ko ci sa bopp jàpp ne xasida def laa yëkkat xasida def laa soroxal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu المختار